mu tolloo comme ni nga ko waxee muy jeexitalu seize jours d' activisme kon naa ne bu ñu nee jours d' activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles mm. dafa am dafa tax dafa am fuñ ko teg ndax dañuy wax en général violence basée sur le genre euh, présidente wax ko sànq muy góor ak jigéen nag mm. maanaam métital góor ak jigéen la ñu wax ñu gën koo leeral mais dañu ci jagleel fukki fan ak juróom benn yu nga xam ne jigéen yi ak xale jigéen yi lañuy gën a fësal. Mhm. loolu dafa am fu ñu ko teg tamit mooy ci ñu seetee ci xayma yi wane nañ ne jigéen ak xale bu jigéen lañuy gën a faral di teg métital yooyu. Mhm. Ah, ci métital yooyu euh, ci àddina bi sax ñu ngi naan ñetti waxtu bu nekk ñu ngi benn jetti jigéen dinañ subir da nga xam ne moom mooy violence ci àddina bi.

bi ñu ko wanee xëy na yàgg na 2015 yàgg na te itam may am mbégte di wax ne loolu ñu defoon 2015 ñu ngi koy commencé waat ci fan yu néew di ko gën a def nag mu gën a généraliser gën a xóot ndax itam dafay baax ñu taxaw xayma loolu yëpp bi ñu ko wanee wane nañ ne ci loolu ñu def maanaam xaw na jéggi dayo ndax boo demee ba ay région yu nga xam ne si téeméeri nit yoo jël 70 foog naa mooy juróom-ñaar fukk mm-hmm. juróom-ñaar fukk yu teg am nañ ci violence dëkk bi gën a néew région bi gën a néew ci téeméeri nit fanweer ak juróom-ñaar la. bari na quand waaw moo ci hmm. gën a tuuti. Hmm. kon boo ngeen xam ne violence kon mi ngi fi. Hmm. ak num ko mun a ñëwee nag ndax violence yi dañoo bari. xeet gi dafa bari ñii ay dóor la ñii ay saaga la ñii ay métital la ñeneen ñi am na yoo xam ne sax. xeetu violence yu sew yu nga xam ne hmm. nit ñi sax dinañ demoon ba duñ naan du violence mais li muy def ci nit ki def ko si jigéen ñi tax nañu xalaat ne sax yooyoo gën a métti hmm. ndax ki koy def du xam ne mi ngi koy def léegi nag Sénégal mu ñu ñu euh, du moins ñu gën a dudd lu métti hmm. ndax kenn ku nekk fàttaliku na 2019 li amoon muy euh, fukk ak juróom-ñett juróom-ñeent cas yi nga xam ne moom lañ fi amoon ñi nga xam ne dañoo dañ leen a métital mm-hmm. maanaam ñenn ñu sàkku leen ba ñu ñàkk seen bakkan mm-hmm. ci loolu nag euh, ñëpp gis nañ itam taxawaay bi nga xam ne moom la ñi koy xeex taxaw ak autorité bi tam lu mu dem ba def ba indi fi loi bi foog naa moo fi toogee daaw loi bi mm-hmm. lañ doon wax ren loi bi di dem ci ba muy dem terewul euh, euh, itam violence di am bien que ñun ca la ñu président waxoon jóg leen ngeen jege population bi. Mm. wax leen loi bi buy vulgarisation de la loi ñu jël ko. très dañ si dañ si dikkale gën ko yaatal. boo seetloo. ci euh, ba ba ñu promulgué loi bi muy janvier deux mille euh, vingt. Mm-hmm. ba mois de mars. ci li ñu jot ci li nga xam ne moom mooy tribunaux yi. te mm-hmm. fukk ñett rek lañ ci jot. matul fukk ak juróom quatre cent cinquante six. om naka lañ koy waxee ci olof. Euh, Nous des mhm. cas de viol mhm. dans les tribunaux, dans 13 tribunaux. Ce qui fait en moyenne, peut-être, sans recalculer, lolo atla, beaucoup divisé par 400 règles, at weer bu nekk peut am nga ci ñaar fukk ak loolu du mm, mm, mm, kon boog ba tey le mal ba tey des na très bien le mal est là rek laa wax violence yi nag moom gën naa bari violence yi am na tam lu ko gën a yokk mm-hmm. ndax covid a fi woon loolu yëpp covid bi gën koo dëgal mais loolu rek déjà bu ma bàyyi nga tàllal rek après dañoo tàggoo

du célé lu ñuy célébration du feet maman aussi la taxaw seetlu mm. ndax li fi nekkoon daaw ak mm. daaw jéeg ak li ñu waxoon ndax mi ngi fi ba léegi ak yan forme violence moo taxaw ndax euh, évolution yi dafa am ci violence yi may mm. wax euh, ne euh, fi mu ne nii ñëw na li ñu constaté moo di ne xam nga fii fi mu ne passé rek directrice nga koy wax léegi nee nañ la violence faite aux ay xeeti xeet la am nag nu mu nekkee taxawee mm. buñ la né ñaari at ñetti yi passé biñu xayma ñu le témèr bo jëm juroom ñaar fu euh, juroom ñaar fukk ba mm. sont des causes et blessures mm-hmm. donc donc violence amna violence yi physique mm-hmm. ñu ni la témèr bo jëm juroom fuk ba ak ñent mm-hmm. di violence cinquante quatre ñu le ma nga ci biir sphère domestique ba ci biir kër gi ñu le témèr bo jëm boo jëlee juróom fukk ba ak ñaar ak eh, dañ naan virgule nangam sax ñu la yooyukat nekk na ay violence sexuelle mm-hmm. maanaam agression sexuelle wala nag ak lépp lu xeetoog moom rek nag lu ca mm-hmm. jëm ñu ñëw ñu la téeméer boo jël juróom fukk ba ak ñaar nekk na ay violence verbale saaga wax wax ju ñaaw bet di wax la lu nga xam ni naka sa du noonu mm-hmm. ñu la jëlal nga jël ñu la téeméer boo jël cinquante quatre pour cent ba nekk na ay violence économique maanaam lu nga xam ni dafa xeetoo ak abandonné la bàyyi la néewal la nasaxal sa am-am nasaxal sa yëpp. ñu mm-hmm. la ay xeeti xeet la nga xam ne noonu lañ ko te woon mm-hmm. ñu ni fi mu ne nii fan lañ ci toll at mu jot nag dañuy seet ci 16 jours d'activité fan lañ ci toll. Mm-hmm. booleeg nag mesures yi ñu jël ak loi yi ñu jël. di ko appliquer ak ni nga xam ne ñu ngi fexe ba ñu den fii loolu lii nag euh, biñ ko gisee euh, dañu gis ne euh, fi mu ne nii xam nga violence yooyu violence physique ngeen comprendre ñii mhm. la violence morale ngeen comprendre ñii mhm. la violence sexuelle ngeen comprendre Même les violences, c'est des violences négligées mhm. Ken bàyyiwu ci xel kenn bàyyiwu ci d'ar. alors que mi ngi nekk ci nit ñi euh, les violences sexistes Sank gis nañu Binta euh, ak kii kii am na fa nga xamni dañ la naan sans en avoir l'air ñu la yow jigéen du def lii kooku forme de violence la forme de violence sexiste la am ay banen violence yu nga xam al àll euh, yu nga xam ne ñu koy tek les cibles les plus vulnérables ñooñu non dans l'extrême vulnérabilité Mo mii directrice xam na ci dara demal fi ci yoon wi nga gis ñi nga xam dañoo taggo ak seen xel ak yooyu Mm. bis bu nekk ñu jànkonteeg ñoom ak forme de violence te kenn du xam kenn du yëg waa violence yi si bàyyi xel même yi ci doo ko yi ci kër gi nag mm. nga xam ni si moom tamit euh, ñu li la soo waxee ñu la déet noonu la ndaxte nii la war a demee ak nii la war a demee mm. te nag du diine du coutume du tradition amul dara lu justifier les violences faites aux fii waaye bu ñu defee ni nag violence aussi ci jigéen rek la jëm dañ leen dafa jëm ci jigéen jëm ci góor mhm. aussi bien les hommes que les femmes sont victimes de violence euh ñu mhm. defee tamit ne góor gi rek moy nek auteur de violence mhm. aussi bien les hommes que les femmes sont auteurs de violence mais ci xayma bi xam nga lu mu dañ leen ni violence ci kaw jigen mhm. la exercer violence mhm. té nak jigen bi nga victime de violence mhm. de violence violence kenn tolérer de quelque manière que ce soit et de quelque forme que ce soit c'est une balafre dans la société absolument ah, mm. alors en tant que en tant aussi en tant que militante waaw donc euh, comme niñ ko waxee lépp mhm. génn nañ ci si tey la ñuy dakkal ces jours d' activisme yi parce que tey lay mhm. jeex mais wax naa ko sax ni mobilisation bi sensibilisation bi daf daf ko ci fekk te daf ko ci bàyyi aussi ñuy woy di koy def mhm. jàngat bi ñu mën a am ci Sénégal mooy euh, am na ay loi yu bëri yu fi am ratifié nañ ay loi euh, am nañ loi yu bees mais dañuy woy di seetlu ni violence yi chaque jour de plus en plus dafay gën a fréquente am yoo xëyee di ngay dégg ba ni ñu wax rek am na ay cas de violence yoo xam ne ni ñu ngi ñu koy rapporter et que li li li li ciy doy waar mooy des fois sax dañu naan ku jigéen ki fu mu jëm wala ku muy woo assistance bi et tout mais en général des fois day mel ni patate chaude quoi doo mm-hmm. xam foo jëm mm-hmm. et des fois yow sax en tant que militante da ngay ni qu'est-ce que je vais faire avec ce cas-là oui. donc pour vous dire que violence aujourd'hui fii ci Sénégal réalité la réalité quotidienne mm-hmm. chaque jour mënoo xëy suba ba jënd so

soo yuuxoo eh surtout nañ ma si ñu ne non boo bëggee ku la laal da ngay da ngay jël taxi et eh, alors que au vu et au su de tout le monde mm. yenn saa yi nga nga nga nekk ci car rapide apprenti ah, bi yuuxu la wala jaay la doole jox ma sama juróom du ma la ko jox parce que jigéen nga yenn saa yi sax ngay nga nga nga nga bëgg dara ñu jaay la doole donc dafa mel ni suñu environnement mm. violence bi dafa nekk une chose réelle mm. maintenant comme ni est-ce que nous, on est laissé à elles-mêmes est-ce que mm. les femmes sont laissées à elles-mêmes mm. et je veux dire est-ce que les victimes ou les survivantes de violence ne sont pas laissées à elles-mêmes mm. là je veux dire parfois qu'elles peuvent être laissées à elles-mêmes parce que des fois nous sommes am issue fan la ñu des fois su que violence économique comme nous mu dit, waxee ku jigéen ki fan la parce que me dis sama jëkkër le aw parce fu ma jëm parce que aw ma xaalis aw ma aw ma lu ma dundalee a yenn saa yi fan le job, parce que su ma demee dinañ ni am tas na wala def na c'est-à-dire dafa ni toujours même si la sako sax qui ni lan la defi won lan la fa mm. ou les réalités socio une grande partie en tout cas. est faite de sorte que. Mm. on ne peut pas ne pas être. violente alors <laughs> professeur. Ah,